Most people would say that NDP has failed. We have seen our own Dr. Cisse writing, Barrow doesn't have enough time. We've inherited a very bad governance system, but this NDP came to guide the Barrow administration. Dégala ñu ngi ko gërëm di ko santa ci liggéey bi ndik man VDC member la man maay public relation officer bu Jambanjelly VDC yoon bi nii yàlla dafa def mu ànd ak suñu wërsëg ndik ñun bi ñoo sos VDC ak bi Adama Barrow di jël réew mi benn la waaye yoon bi nii bañ ko dooree ba léegi ñun ñu ngi ko toppa ci liggéey bi liggéey bu rafet biñ def ndik buus na suñ économique ci dëkk bi léegi foo yoon bii nii ñu ngi fi woon waaye nag da gis ne économique bi yoon bi indiwaale léegi soo seetee mun nga koo witness ci dëkk bi koñ ñu ngi ko def ay boutique nit ñaa ngi ko luyaas nit ñaa ngee jaay njaay yoo xam ne nit ñaa ngee jënda léegi am na bagage yu bari yoo xam ne suñ leen amee dañ leen dee jaay fii ñuy jar because of yoon bi access biñ am ba pare mu ngi ñu jox easy access jógee fii nii dem Serekunda amoon na time dañ daan round dem Birkama door a dem Serekunda waaye léegi jógee fii nii direct Serekunda wàññi na suñ cost wàññi na suñ time because da nga daan jël two hours pour egga waaye léegi matter of 30 minutes yaa ngi Serekunda loolu beneen jéego la boo xam ne yoon bi jox nañu ko ba pare bi tamit. gis nañ ne ku ñu bugga la ndik mënoon naa em Sukuta rek inauguré yoon bi dem waaye mu ne foog ma eega jàmbanjeel yi gis suma nit ñi nekk foofu ba yoon bi tamit yaakaar nañ ne suñ doom yi ak suñ sët ak suñ sët sëtaat yi yëpp dinañ ci am bénéfice because yoon bi nim mel gis nañ ko ba ñu ngi ñaan yal na continuer taalal ni dem Gunjur